yëglekaay bi di ñu xamal ne kay moom jamono ji nag liggéey bi tàmbali na ndax fi mu toll nii nag yat wa dal na ci kaw ñi nga xam ne rek ñoo doonoon ay jëwriñ ci nguurug Macky Sall ginnaaw bi ñu nangoo seen ay passeport diplomatique mu doon loo xam ne rek yéenekaay yu bëri dellu suwaat nañ ci ne jamono ji kay jafe-jafe yi tàmbali na nag ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci nguurug Macky Sall ay mesures yu yees yoo xam ne rek dafa jëm ci nangu seen ay passeport diplomatique mu doon dogal goo xam ne rek parlementaire bi di aji mergan kanute nag ma ngi koy ñaawlu bu baax a baax jàpp na lu ñu mel jaaduwul nag yéenekaay bi di Vox Populi nag dellu suwaat ci lu jëm ci wàllu passeport diplomatique yooyee nag ñii di ancien ministre yi nag may nañu leen ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars mu doon loo xam ne rek ci ab décret 2024 843 la ñu ko signé nag date boobee nga xam ne rek Macky Sall mi fi nekkoon moo ko xaati moom yéenekaay bi ne lu ni mel nag ay mesure la yoo xam ne rek daañu ko yaatal ba ci député yi nekk ci assemblée nationale officiers généraux yi ak ñi nga xam ne rek ñoo di ambassadeurs yi nag l'observateur xëy def taxaw seetlu ci matukaay yi ñu war a jël rek ngir mën a jooyante nag lu jëm ci wàllu dundu gu cher gi Walf Quotidien wàllu dund gu cher gi nag rawatina nag lu jëm ci njëgu loyer bi nag wàllu fiscalité bi nag fexe ba ñu koy fay ci réew Sénégal naka noonu wàllu subvention yi nag loolee bokk na ci li nga xam ne rek ca lañ mën a tënku ngir mën caa génn mu fekk jamono joojee nag le quotidien yëglekaay amal waxtaan wu am solo ak jëwriñ ji nga xam ne rek moom moo di Daouda Ngom moom ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi nag ne mën nañoo suqalikuwaat te du am benn jafe-jafe waaye faaw ñu leeral nag mbirum 94 milliards yi nag rawatina koppar yi nga xam ne rek dañ koo dugaloon ci wàllu fond covid 19 ci biir yëglekaay bi nag ma ngay leeral ne amul na lien parenté ak kii di Ousmane Sonko bés bi le jour daal di dellu siwaat tey ji nag ci dossier OFNAC cour des comptes ak parquet financier yu corps sous contrôle yi nga xam ne rek jiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ma ngay proposé nag appel à la candidature jëm ci président bu OFNAC Serigne Bassirou Gueye di ab kaa ci Ousmane Sonko tribune yëglekaay wax ci wàllu crise bi nga xam ne rek am nañ ko ci wàllu koppar jiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ma ngay dalal xelu askan wi nag waaye mu fekk jëwriñam bi ñu dénk wàllu finance nag jàpp ne boo moytuwulee nag daañu ministre Ousmane Sonko nag daañu ko xaar nag tey jii ci ab nemmeeku bu mu war a amal ca building administratif Sud Quotidien nag daal di dellu siwaat ci crise leadership bi nga xam ne rek am na ci biir Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi ne ba nëgëni si nag coow laa ngay wéy ci boobee parti nag ndax jamono jii nag ña ngay xool nees mën a taxawalee ay programme yoo xam ne rek daañu mën a am ku jégu dëgër enquête jéglekaay moom jamono joojee mu àddu ci sous région bi nga xam ne rek junte militaire bi nag ña ngay gën a wone seen bopp coupure internet lu jëm nag ci wàllu xoqatal ñeel guinéen yi nag pouvoir bu dumb yaa ñàkk bët gànnaar bi nag loolee léegi lekaay bi xam ne nag kii di Assimi Koïta nag daal di tere lépp luy yëngu-yëngu politique ca Burkina nag ñii di kilifa yi ñoom daal di woo ñi nga xam ne rek ñoo di ko jege ci ab front addu jëmale ci liggéey bu am solo bi nga xam ne rek waa douane ti nañ ko nag daal di teg loxo lu toll ci 1137 kilogramme bu cocaïne nag ca Kidira la ñu tegee loxo lu ñu mel nag mu doon loo xam ne rek bu ñu ko xaymaa ci suñu xaalis war naa toll ci 90 milliards ak lu tegal la solo yëglekaay def taxaw seetlu niki tey ji nag ci méthode yi nga xam ne rek moom la lu jëm ci wàllu wàllu planification familiale yéenekaay bi dellu siwaat nag ci li nga xam ne moo di bopp buy metti biir buy metti rawatina nag lu jëm ci ay saignement yoo xam ne rek soxna yi amal planification familiale moom la ñuy dëkkee di jàmbat yër leen boobee yëglekaay séq nañ ci waxtaan nag ak yi nga xam ne rek moo gàlloo xibaar yi ci association nationale des sages-femmes du Sénégal yéenekaay yu bëree bëri xëy tey jii nag dal di àddu jëmale ci génn àdduna bu taskatu xibaar bii di mbay sii di mbay yëglekaay bi nag ne presse bi ñàkk na ko mag a mag soleil yëglekaay daal di